مدلي القار في عرم رمي مخجل كل مخرج ومجرم أصحب ربي عند خجرنا راسا وسر جنده لسي من انتظر إذا كتبت احتذى رسول ملكي وفر من دري كل ملكي للمنتقى وصلت عند البحر ما خاد لي فيدا خداك بحري أوصلت للماء لدى من كفر مخجل من قد كفر والنفر هل يأمن الله بانصرافي من سلموا نيما ترافي من هل الله بانصرافي min faydi inda sawi inxiraafi akramani bi sirri alqaybi man qaadani bi ilmihi alwahbi lil murtada wasaltu martadaahu li wàcci man arda bi ma xadaahu baabi qatiyaa ibadallaahi asaalina laahu muxsillaahi ألهمني في البكر مقصي كافرين ما قاد لي بي أجور الذاكرين لقد تبين لدى الكفار كوني عبد الله في أظفاري نفاهم الواجد والقار والكل منهم سب كار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki julli di fi teew yépp ak mbokki taaliba yi ginnaaw bu nu sante yàlla sunu borom subhaanahu wa taala ñu ngi julli ci ngandim mbindeef sallallahu taala alayhi wa di santaat yàlla bu baax di feeñalaa sunu bëgg ak sunu taalibe ak sunu yéene ci Seex Ahmadu Bamba Xaadim Rasuul di ñaan sunu boroom gën ñu koo doolee fayal te xiirtal nu ci boppam waxtu wu ne muy guddi di bëccëg saa su ne rek sunu bët yi yàlla bu muy gis lenn lu du sëriñ bi sunu cër yi yàlla bu muy yëg lenn lu du sëriñ bi sunu xol bi yàlla bu mu yëg lenn lu sëriñ bi muy guddi di bëccëg yàlla nu ko sunu borom defal lépp loo xam ne yàlla mën na koo nattoo doomu aadama ba mu indi ko ay pakk-pakk ci digganteem akuk taalibeem loolee day yàlla na ne ci sunu boroom dimbali dox sunu diggante ak loolee ndax sëriñ bi rek a fi ne ginnaaw loolu nag ñu ngi dog ngànt bu baax ci kilifa yu baax yi nga xam ni danoo teew ci jataay bi kon yëkkati ay kàddu ci seen kanam du ay teggin waaye dañuy wax ndigal moom caabi la su ëppee du tijji su yéesee du tijji te boo yootaanee man ngaa yàq la nga xam ne moom nga doon tijji kon nag ndigal rek lu metti metti moom ñu fas yéene koo jëfandikoo ngir sunu borom dimbaluñ ci kàddu yi nga xam ni namm nañ ko fee yëkkati dafa am nag loo xam ni waxtu wu ne dana koo baaxoo woon mu mel ni dafa am ñoo xam ni danoo dëkkanti dëkk bi wala ñu dëkk ci tund wi bokk nun bis bii daan fi teew di yëkkati seenu ñaq di ci def boole kook seenu coona mu mel ni ñooñee nag sunu borom moo leen fi indi woon waaye mu bàyyi leen ci jamono ba mu yàgg mu ñëw jëfandikoo coobareem ci ñoom te loolu kenn sañu ko kudul moom dong nag moom dong moo ko sañ kon nag bu yàlla dogalee loolu am kon ñu daal di jéem a jëfi ndigalu sëriñ bi di leen sàkkul ñaan li leen ko wayaan ci bépp jullit boo xam ne teew na fi ñu sàkku ndigal ci kilifa yi ñu defal leen ñaan sëriñ Mor ba muy doog a ñëw fii ñu koy taxawal li ma nekk taalibe Cheikh Seydil Hadj Malick bokk naa ci ña daan yenu tibi di ko indi fii ci raxmatu mu nekk lu yàgg danga koy ñaanal yàlla yal yàlla guddal at yi yokk sa wér ci barke nint bi di ziyaara kilifa yi toog yépp di ko jaara ci sëriñ Mor Fall mi nu fi dajale di sant suñu borom bu baax a baax di sant yonent bi sallallahu di julli ci moom di sëlmal ci moom di ñaan ci ngëneelam ak xéewalam suñu borom wàccee ñu ko suñu kaw ci barkeb Serigne Touba di sant Serigne Touba tam di ko dellu dénkaat suñ bopp di ko njukkal di dellu jaayante waat ak moom di ko dénkaat suñ bopp di ko fàttali mbooleem ki fi teew ñu xam ne sëriñ Touba rek moo fi nekk ñu delloo ko njukkal te xam ne lépp it ndimbalam ak tawfeexam ak mbaaxam moo law ba agsi fii kon nag ñu ñaanal ñëpp. jàmm ak salaam ak mucc yàlla nañ ko yàlla defal ci barkeb sëriñ Touba ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp di gàttal kàddu yi itam ndax jotaay bi xat na te ñu ci war a jëli kàddu tam bare na xaj na kóllëre ak mbaaxu ak sëñ Moor ak bennoo gun bennoo moo waral sax mu jëkk ñu fee jox kàddu waaye ñun ku ci xeebuloon ndax wax di yàlla as ndongo su xeebuloon yëkkati fi kàddu lu rëy ci ñun la ndax ñu fi nekk ñëpp ñoo ñu sut aajul ñoonu féete kaw ci lépp ndax ñun dongo yi xeebu lan waaye nag xañ na kóllëre gi nu yàlla ji boole na ko muy lu yàgg loo xam ne mënul su ko wax sax xañ na suñ boroom a ko dogal ci jamono bu yàgg ñu nekk ñun ñëpp ay ndaw bu ma ko doon misaal ëpp na fanweeri at kon yaakaar naa loolu ah wax dëgg yàlla bari na lu fi jiitu loolu fàttewu ko man mii ko jàppalit fàttewuma ko ndax nii nga xamee ne tey ni laa fiy teewe euh, famille bi ma bokk bis bi ñuy woote di ci wàcce alxuraan ak xasida noonu la fay teewee di teewal njabootam ndax su xëyee njabootam gépp la fay yebal ñoo yor kaamir yi bu paree tam waxtaan woon fay def lépp moo koy jiite tënk ko ba taxit sama teewaay bii famille bi yëpp laa fi teewal ñëpp itam amoon nañ yéenay teewu ñëpp it xam nañ fi nga leen toll xamoon li nga leen li jàppee nit nag amul lu dul bisam te bis yëpp bisi Sëriñ Tuubaa ndax la ñuy woote foofu rek moom ngay woote fii mooy dundal lislaam jàngale lislaam woo nit ñi ci yàlla gunge leen ci li nga xam ne moom la yonente bi wàcce jaarale ko ci mboolem mbindeef yépp mu war a egg ci ñoom muy jottali bi yàlla suñu borom kenn ku ne xam fi ngay teg sa tànk xam li tax yàlla wàcce la ci jamono xam li nga fa war a nekkee ci xam ne àdduna lu gàtt la lu tënku la lu waaye mat góor góorgóorlu rek bàyyi woo nga dolli ko maa ngi doomu bu tuub dong laa mais du ma tooñ mais barke Xaadimu Rasuul ku ma tooñ dinaa la duma ngir daraje papaam ah dañu ne doomi mber nanga nga jàngi boore ndax yàgg-yàgg dinañ la waaye siñ moom mii doogoo ne kenn doo doogoo ne de barke borom Tuuba Mbàkke doogoo ne kenn lii moom yàggoo naa ko mébét ci yow yàggoo naa ko xam xamoon naa di nga dem tunu gii nag am nañu lu jafe am nañu lu jafe bi nga xam yàlla def ne naa booleeg si moor mi mu ñu taxawal bees bii dëkk bi moom kanam rek la jëmm ak képp ku mu gërëm it jàkkal yu yow gërëm la nen naa la yàlla suñu bopp dina def ci yow tawfiq ak taysiir li ñuy wax daal mooy sëñ moor jërëjëf sëñ moor jërëjëf sëñ moor jërëjëf ah tasoo suñu yaakaar olof yi nag dañu am lu ñu wax dañu lu juddoo cim tàgg bu soxali dongu naawul jaaxal ay bokkam kon nii rek la war a mel nga war a mel kon nag lii nga xam ni moom nga woote dajale fi mboolem jullit yii dafa dajale fi sëti sëriñ Tuubaa yii dajale fi góori yàlla yii lii li sëñ Fallu wax rek boo doon a gone mbaa ngay borom bët bu ndaw kon lii doo ko mën a am tey kon nag lii nga def ñun sant nañu lool di ñaan nag itam suñ moroom musal la ci am ndab akum ndox ndax sunu yaakaar dolliku na sunu yaakaar dolliku na bu baax a baax a baax a baax a baax a baax bokk gi mooy ñu bokk lu mënta séddoo te mooy Sénégal bokk commune bi bokk bokk gi bokk lépp euh, lii nag olof dafay wax ni képp ku woote ndaje lislaam ak ndaje mu mu doon boo sañan gis say bokk gis say soppe gis say wóllëre gis say xarit gis say am di jàmm alhamdulilah bi nga xam ni sunu wayjur bu nu neexee ci wàllu kër ndey muy sunu ndijaay bu dee ci sama wàllu kër wayjur wu góor muy sama papa loolu la yàlla dogal ci mooru Maysa mii ndax sama woy juru jigéen mi ngi sant Fall Bakar Fall mi ko jur ak Mor mi jur Baye Serigne Fall mi ko jur ñoo bokk benn baay sama woy juru góor tabaarakallaahu yaayam mi ngi tudd Astu Fall moom itam ñibbiwaat Tawa Fall bokkaat ak baayam benn baay kon deret ci bokk ci deret moomu fi indi ak yàllay kese mooy lislaam lislaam nag képp koo xam ni danga woote ndaje luy dundal pas-pasu lislaam képp ku ca ñëw di ca dox si daa ñëw pour dëbbale la la ca am solo mooy mbooloo képp ku leen dajale nga wax leen fa loo xam ne dana leen mën a jariñ ñu mën cee defar seen diine man cee defar seenu bokk man cee defar seen dëkkandoo mu jariñ leen fii ci àdduna jariñ leen àllaaxira dara ëpp ca solo nag dajale ay xale ndax ummal islaam senes walla mbooloo wala njabootu lislaam ba ca ëpp solo mooy xale ak jigéen borom bi tabaaraka ko taala wax ni nangeen yar seen ndaw ñi yoon jaalal ko yonent bi saa sallam mu wax ni na ngeen digal seen ndaw ñi buñ amee juróom-ñaari at ñuy julli ñu ni ko lu tax mu ni julli dafay soreel nit ki ci def lu ñaaw ak def lu bon xanil fahshaai wal munkar wala dikrullahi akbaru law kaanu yaalamoon ki nga xam ni mooy mooy seen gidd di maam Cheikh Ibrahima Fall nga xam ni bis bii bu ko Baye Mor di taxawal mooy seen bunt ci maam borom Touba radiyallaahu taala maam borom Touba di bunt ci yonent bi salaahu salaam ci seen pas-pas lim digal ndaw yaa ayyuha sibiyaan laa tastaxilu an il huda wa bil istaxilu bil ifsi wa tilaawa wajtanibu majalis alsaxaawa wa laazimu man laa yazaalu aabida li rabbihi ila alhuda qaida ñu ni ko lu tax mu ni fa kullu man baadara waxtu sixar ila alhuda istaraxa waxtu kibar ñu ni ko ah waaw ku nekk mag nag bàmba Seex Ahmat Bàmba ku nekk mag nu muy def mu ni wa man istadaaraka xat faata mina luxa wa amarat awtaar am ñu ni luxa am ñu ni laxaa ñaar yëpp a mën a nekk ci ñu jàng grammaire wa amaral awxaata bi tawbati nasuuxi wal iqbaali ilaa ilaahi faaza bil kamaali kon moom Maam Borom Touba Cheikh mooy seen bunt ci ñu yaakaar Cheikh Ibrahima Fall di nooyee Baye Fall Baye Fall nag mooy dikkirul ilaah zikkar ndax moom moo laaj Maam Borom Touba ni ko lan moo gën mu ne ah li gën ci li yàlla wax de mooy tudd yàlla ah, lii may wax nag maa ngi koy ndokkeelee seen daayira bii ngeen tuddee nasrun minallaahi nañ góor góorlu bu baax a baax ci ci ci ci jaamu yàlla teg ko ci dëgg waaye léegi dañuy góor góorgóorlu ci ab am am rekk wut rek àdduna wut àdduna rekk bakkañ nit ki bu fi jógee li muy wut dara lu ko ci jariñ amut dara dara xanaa lam doon def ci lu baax rek nit ki liñ ko boo bu fi jógee lu alal ji bari bari seetlu liñ koy waajale ni muy ñàkk solo njuga kebe keroog bi ñu koy denc sëñ Abdou Khadir di ko jullee njuga kebe laa wax dañ koo booleeg koo xam ne dafa xawoon a dese waaye sëñ Abdou Khadir bi mu ñëwee ñu mboole leen teg sëñ Abdou dane ana kan moo ciy njuga te wallaahi dañ koo boole koo xam ne xel ma daa xaw a dese waaye sëñ Abdou Khadir lañ juga doon bari bari alal daa ñëw dane ana kan moo ciy njugo loolu da ci doon xamle adduna sëñ tax ñu ñu ne ko kii mooy njuga kon alal amul njariñ li am njariñ mooy góor góorgóorlu rek kon ñu ngi gàttal di jël kon nag képp koo xamante ni ànd nga ak sëñ moor mii liggéey bi foo nga bëgg a yegg yàlla dina la fa yeggale ndax euh, ñun moom li ñuy wax suñ borom subhanahu wa taala rek lañ koy seereel ndax xam naa ne jitaay bii sëñ daam si la mii ak mën mii li ñu mën a seere ci sëñ Mor bariwut ñu ko mën a seere rawatina man mii toog ndax ñun ba ay gone ba tey suñu jur maak moom dañoo boole daara ju ñu mus a nekk ñoo fa mus a ànd te sëñ moor fekke naa sëñ Saliou Mbacke doomi sëñ Tuubaa defal ko loo xamante ni tey jii képp ku topp sëñ moor ci liggéey bi muy liggéeyal sa ajo dana faju te ku ànd ak moom dina teg ci loxoy sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra loolu lu ma mën a seere la te lu ma fekke la jëmm nga joo xam ni ku la am war naa santaat yàlla taxawal nga bis boo xamit ku ci teew war naa santaat yàlla bu baax a baax ndax bëgg cee teew taxul nga teew ci ku sunu borom baaxee rek moo ci teew kon Fall ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm ñi ngi lay ñaanal gudd fan ak wér ndax sa gudd fan ak sa wér mooy suñu kiiraay ñun ñépp bu loolu jàllet ñuy nuyu monsieur le maire de la commune de Pekes Baye njaw fekkante nañ fi ak délégation bàyyiwaat na fet délégation ñu fekkee cérémonie bi di nuyu monsieur le maire de la commune de Niakhène Serigne Moustapha Sylla El Hadji Thione Dieng mi ngi nii toog di jëmm joo xam ni mën naa ni du ñaaxeen rek lay taxawu day taxawu Niakhène di taxawu Cilmaxa ndax ñun ñii ay ndaw nekk fa bàyyiwunu benn yoon ñu wéet moo nu jiitu ci mbir mi mi ngi nuy xelal dinu nu gindi di jaarale ci yoon kon loolu dinañ ko seede ci sa kanam nga ñaanal ko ndax mi ngi ñuy wettali bu baax a baax ñuy nuyuwaale monsieur le maire Abdoulaye Sall ci sa taxawaay. Euh, ni nga ma jàppe sëriñ bi xam naa ni nga jàppe sama njaboot xam naa fi nga féete tund wi yal na yàlla yàggal jataay bi bis bi yàlla na ko yàgg a woote nu yàgg fee ñëw fekk fi taalibe yépp kenn bañ a mànke su ngeen gisee ma ni maire nu yebal waaye du ma wax ci turu maire commune dafa am nu muy doxe man du sëriñ wax dëgg yàlla ñi war a wax ci alxuraan ak diineeg li yàlla wax ak li mu wax nañu ko man politique laay def di nuyu sëriñ moo du Dem mii toog di xale bu yaru di xale boo xam ni xaritu daam sëriñ daam si la mii la dib taalibeem di koo xam ni ba muy joxoñ président Macky Sall booba dara du dara booba gis Macky Sall ak gis coono yem mu ni ñàcc ci ginnaawam ba tey sëñ moo du demal ca kanam rek su ngeen gisee ma ni du ma wax ci turu maire Moustapha Sylla dañu fee dajeeg sunu sëriñ waaye nag di kok sunu kilifa la ca conseil municipal ba ndax moo yor commission religieuse muy Serigne Abdou Karim Gueye kon ndaje mel nii bu nu fa dajeeg moom sa amunu droit ci wax ci turu maire kon sëñ Abdou Karim ginnaaw bu ma yóbbantee nuyoo di gërëm di sant góora as fay ak délégation bi euh, sëñ bi sëñ Mamor ñaanalal xale yi ngànk commune yi ñaanal xale bu mel ni sëñ Modou Dem mii yéeneem yépp mooy fu ñuy dégg ab aw tund dégg fa tund Kajoor moom mii ndongal sëriñ baaralu lu xeebu ñu koy wax Abdou Karim Gueye bu sëñ Abdou Khadir xawlu dana jafe ci man ma tudd kilifa yi te moo ma war waaye miinuma tur yi waaye miin naa kanam yi waaye ginnaaw ndongal Cheikh Mamadou Lamine Baara lañ nu cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu cheikh Mouhamadul Lamine ibnu cheikh Mouhamadul nu ibnu cheikh Mouhamadul Lamine mi ngi nii toog su ma ko joxee nuyoo bi mën na ma koo séddaleel mbooleem naataangooy kilifa mi fi toog kon sëñ Moustapha nuyoo kilifa yaa ngoog waaye mënumaa bañ a nuyu ki waral bis bi te gone yi di ko wax boroom xew mi muy sëriñ Mor Fall yàlla yàlla guddal sa fan maa ngi lay ziar tey am ci yow cofeel tey feddali kóllëre gi ngay boroom xam-xam ci zaahir ak ci baatin ma am ci ay preuve daam ku ko woo ni ko décriral ma Karim décrire mooy xoolal ma jëmmi Karim sëñ Mor ni ko nu yaayam tudd kooka ni ko diw yaayam tudd sëñ Mor décriral ko Karim kooka yónnee ma vocal bi li sëñ Mor wax ci man moo ne ci man effectivement bi ma ko digloo day mel ni sëñ Mor dafa jàkkaarloog man critères yi muy wax ci man moo ne ci man te booba xamuma ci zahir xamuma ci baatin kon borom xam-xam la daf maa listixaar fanaanoo ma la ca des ci ñagas-ñagas nga xam ne taalibe bu doy waar am na ko sëñ bi maa ngi lay ñaan nga fa xasal ma ko ci ba sa barkeem maam alaaj jëw caam nee na bi ngi lay nuyu mi ngi lay ziar te mi ngi lay ñaanal yàlla sa taxawaay yàgg ndax nee na yàgg na laa yàgg na laa gis yàgg saw gi si doxin saw doxin xool ni ngay doxe ci diine ak lislaam te li ngay doon ndaw ndaw ni ko Mor Fall sa doomi baay ji waxee di sama jarbaat xam naa taxul sax mu xàmme ma lool waaye bokk na maa lu bari te yi kon ñu ngi lay nuyu ci tur Njaw Caam di nuyu mboolem ku fi teew di nuyu ay bokki meeram yi nga xam ñoo fi nekk te wax ci ñoom lu baax ndax wax dëgg yàlla soxoruñu iñaanuñu bu ñu soxoroon baa ñu iñaan am na neneen nuñ mën a waxe ndax mën naa am am na paar yoo xay ne xaw nañ caa a tuuti waaye ñoom xooluñu loolu dañoo xool fi ngeew toll ak ni muy doxe ak ni muy doxalee nee na mi ngi nuyu ñëpp mi ngi gërëm ñëpp mi ngi siyaar ñëpp mi ngi ñaanal ñëpp jàmm delloo di tàllalaat ñëpp loxo nee na moom xamul opposant de waaw nee xamul loolu de nee na moom képp ko xay nangu ngaa ñëw ànd ak moomu liggéey ak foo mën a nekk ak noo mën a nekk ña nga ñëw ngeen ànd liggéey tàllal na la loxo ndax yow si naa Masata Fall maa Njàmbur Fall maa Njàmbur Fall Amadou Fall Seer Ndiaye ma Fall mi Yaasin Ndawr mi ci mu damel man seng maa joor ma Samba Taak ma xuree jëkkali ëmbari ngeen sabel gàggal birum bu ñu damel damel de ci fu nga jéeri jor ndeer Fall damel Samba Yaay Fall nga ne ma taalibe ma ñor ndax sa maam si maam si Ibrahima Fall laay roy Serigne Mor yaa liggéeyal Serigne Saliou Mbacke borom lii xaadatil wu jóori wal ma Saliou man yàlla damay fay man Serigne Bamba lii xaadatil wal ma Saliou fay ga amul misir amul yàlla dama koy jóor wu jóori wu jóori wu jóori ñi ni mooy lan mu ni Serigne Saliou bi tey wal gis wey ni Serigne Saliou sa sang baa ngi toog ku sopp Serigne Saliou Serigne Mor Serigne Saliou seede ci yow sa doomu baay bu suxurut bee wax na ko léegi waaye nag nga liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall loo xam ne foo dee dëngañ di dem koy bàyyi Fall mbaam bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall bu la xoolee bëgg la waaye nag jom ful la fayda Serigne Mor diina jëmu la sariha jëmu la xaqaqa jëmu la nga boole personnalité boole kook liggéeyu Serigne Touba bi nga yor ci yàqaloo kenn dara ci fii nga nekk كفيت كل درر يلاه بسر لا إله إلا الله هب لي مرادي كما أهواه بسر لا إله إلا الله يسر لي العسر كما أهواه بسر لا إله إلا الله على نبي المصطفى يا الله صل بلا إله إلا الله nuyoo bi nag ak siyaar bi ñu ngi ciy jiital Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifa général de Mouride di ko ñaanal yàlla na ko fi yàlla yàggal ca wéral ko di nuyu tamit Serigne Amdi Fall xalifab Seex Ibrahima Fall di ñaan yàlla yàggal ko fi ca wéral ko di nuyu kilifa yi nga xam ni ñoom laa bokkal jotaay bi ca muy sunuy nawle depuis ci suba ba tey ñu bokk ànd ak ñun bis bi. Eh, di ci jiital. di ci jiital. njabootuk sëriñ Tuubaa gi nga xam ne. njabootuk sëriñ Tuubaa gi nga xam ne. ñoo fi jiitu. soxlawul. di jaaraat ci tur yi. ndax Seex du jaar na ci. ca nag ñoo ko tuddloo. xanaa. ñu tudd ñi nga xam ni. ñoo bokk ak ñoom jotaay bi rekk ñu yóbbaale. ñi nga xam ni fi lan yendu di ci jiital sëriñ Moodu Mbàkke ak sëriñ Seex mbakke moom sëriñ Moustapha di leen ci jiital ndax nag dereeti sëriñ Tuubaa lanu lu waaye di tàmbali da leen caa a jiital waaye nag di ci teg sëriñ Daam Silla mi nga xam ni mook moom kenn lanu dunu ñaar kenn rek lanu ndax nag ku ma xam xam ko ku ko xamit xam nga ma sëriñ bi ne mi ngi koy nuyu bu baax di ko sant bu baax ne ñi ngi koy wax léegi sëriñ ko Kosa Mbàkke moom sëriñ Fàllu Assajeey di sama xarit bëgg ma lool ca mu féete fële ca dexale yemu ca boole ma ak njabootam gépp fu nu teew sax kàddoom ñun la koy bàyyee waaye nag egsi na léegi mi ngi ci biir maa ngi koy nuyu bu baax di ko siyaare di ko jox wàccuwaayam di ko jéggulu it ba mu yegsee danoo waroon a jóg waaye nag li ñu tënk xam na ko te xam naa ni kàddu yi moom du yàgg di ci tegit sëriñ Moustapha mi nga xam ni sama xarit la sama genn wàll la lu dul bis bi léeg-léeg sax dafiy ñëw yendoog man mbaa mu fanaan ak man bis bii ay xat-xata ko jàpp ne kon bërki démb la ciy ñëw bokk kook man ne kon maa ngi koy sant bu baax waaye nag di nuyu sëriñ Papa Ndiaye di ko beral ak cant moom doyuma ci moom seere maa ngi koy sant bu baax ci teewaay bii mu def ak déplacement bi di nuyu sëriñ fàllu Diouf moom itam maa ngi koy sant bu baax waaye di nuyu tamit sëriñ Mor Ngone nga xam ni noonu ma ko waxee rek noonu la demee waaye nag sëriñ moor dafa ñàkk kiñaan rek waaye bu amoon kiñaan loolee donte am na mën na caa bañ a egg njabootug baay sëriñ faal nag ñoom ñépp benn lañu loolu la ko yàlla defal kon nag noo ngi koy sant bu baax ci teewaay bi ak déplacement bi ak pëstef bii mu def ba ñëw fii ci xam ni fii jigéewul ku fi ñëw rek yëg na la nee kon maa ngi koy sant bu baax waaye nag di nuyu tamit sama xaritu bopp bii muy sëriñ Mbàkke Mbay nga xam ne sëriñ daam mii bennoo gu ma bennoo ak sëriñ daam moo fas sama digg ak moom ci ak rafetal ak bëggam lu baax moo ko mat ba mu si fii xëy na ñun de yi ñoo defagul li ñu war a def waaye nag moom matali na kon maa nuyu bu baax di ko dalal jàmm di ko jox wàccu waayam waaye tamit di nuyu sëriñ digal faal mi nga xam ni sunu mag la ba noppi nag ñu féeteeg moom ndax sëriñ bi moo defoon loolu kon nag ñoo ngi koy sant bu baax ci teewaay bi bis bii ba mu amee ba tey mosu ko wuute kon nag noo ngi koy ñaanal bu baax yàlla dolli ko fee yàggal ca dolli ko wéral di nuyu kilifa yi diine yi nga xam ni teew nanu fi di beral rek am nuyoo sëriñ Abdul Karim lii mu wax ci ñun lépp ci moom mi la ne kon nag ñoo ngi koy sant bu baax fa ak cant tàmbalee ba fa cant yam kilifa diine gu fi teew daal te nekk ci biir tànt bi ku daal di nga juum ak ñi nga xam ni fi leen yendu si ca ma tax leen a jóg ndax nag mbooloo mi ngeen fi gis li fi yendu si moo ko ëpp fopp di sant bu baax mbooloo mi nga xam ni yendu si nan fi ñu ci bari ay itte moo leen dab ba ñuy weeku kon nag sant naa ñépp gërëm naa ñépp ndax ku wuy si ñun ñoo tax kon maa ngi sant di gërëm ñépp di santit sëriñ Mbàkke Njaay moom bi mu ñëw wax dëgg toggoon ak ay coono tey nag bokk ci kilifa yi njaayeen yi di ko baax def itte yii mu def ak pëseef bi mu def ba teew ci bis bi ndax fii sori na te it nag yoon wi neexut kon ku jóge fu sori bu yegsee fi yow xamal ni yëg na la kon nag nee mi ngi koy sant bu baax ci déplacement boobu nga xam ne moom la def kon nag di nuyu kilifa yi diine yépp bàyyiwun kenn ma ñenn waaye nag ma dikk nag ci sama mbokki autorité yooyu ñi nga xam ni man ak ñoom ñoo bokk bis bi te ku ci ne feeñal yéeneem di ci jiital préfet li ñuy wax CRD moom la ma wooteel def ca lam ca war a def lépp lu ca des ci ñim ko wax la dese waaye nag moom la mu war a def def na ko matale na ko sëkk kon nag maa ngi koy sant waroon naa teew ci cérémonie bi waaye nag daa am lu ko tënk kon nag maa ngi koy sant bu baax te nag ba noppi yëg ni yëg naa ko di ci teg monsieur le maire Ndiaw Thiam sama xarit la maa ngi koy sant bu baax teewaayam teew na bi ci bëccëg joxe àddiyaam sant naa ko bu baax keroog bi ma ko nee làmp yii dëkk bi dafa lëndam lool ca nag ñu ngi fiy bëgg a màggal ca nag mbooloo fii daje dani ma bu soobee yàlla bu subaa làmp yi dina tàkk aw ma lu dul def jekki jékki xëy rek gis mu yabal daam mu ñëw monte làmp yëpp nee na loola nag donte da ko war ak yëg la ndax ñun suñ kàddu rek la ñu am ku ñu jëfal ñu sant la kon nag sant na ko bu baax a baax tey jii teew na fi ak àddiyaam ba mu ca jógee it mi ngi fi bàyyi ab délégation yoo xam ne bàyyi ñoom moo ko fi teewal ñu koy sant bu baax ci taxawaay boobu mu def di ko ñaanal yàlla it li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal waaye nag di ci teg monsieur le maire Moustapha Sylla démb woo na ko woote bu yàgg waxtaan ak moom la bëri lool ngir xam ni moom xaritam la ku miini tant bii xam ko muy Moustapha Sylla maa ngi koy sant bu baax cant goo xam ni am na fa mu tàmbalee waaye amut fu mu yam ndax démb yónnee na fi addiye ju bari boole ko ak akub ceeb ne kon nag wëlbatiku yebalaat fi tey jii ab délégation kon kooku li may def ñor na ko kon nag moom la muy def dana ma ñor li muy bëgg ci di ko wut yàlla na ko yàlla defal di sant it cant goo xam ni am na fu mu tàmbalee waaye nag yëmut fenn ni ko allaaji coon waxe léegi noonu rekk la demee courant bii ginnaaw bu yàlla jàllee ak taxawaayam ak pëseefam ak jàppam ci moom la jaare ndax dafa màggal si fii ma ne ko dañoo bëgg courant mu ne ma da ngay bind demande nee ma ne ko demande yow yaa ko gën a gaaw ca fa ngay jaar ak la ngay wax ak la ngay def man mii de xaw ma ko kon jàppale ma ba ma am courant mu daal di ni ma am na dëkk yu ma may dinaa fexe dinaa fexe ba sa dëkk bii ma boole ko ci loolu bi ñu demee ba nga xam ni ñu ngi koy waaj mu wax ma ko boobaat jàpp naa ni xëy na daa bëgg lu ma neex rek ñu dem ba ab diir mu ne ma ndax amul ñu fi ñëw di gas ay pax ma ne ko ah kay ma ne ko mbaatu dañ ñuy nax ñu toogub diir mu woowaat ko ne ko poto yi de dina ñëw suba wala ginnaaw suba ñu toog ba mu yàgg ma gis poto ñun mbokki taalibe yi nañu góorgóorlu ci diiney lislaam bëggante fonkante jàppante tey jàppalante te yàlla rekk tax te moytandiku fen te moytandiku fen sëriñ bi ne léegi fen bari na lool koo digaaleel fen ko koo jëflanteel war ko boo dee jullit day doo jullit ba gën ndax yonente bi nee na jullit du fen kon nan moytandiku fen te fenit nit mënut di ko def ba noppi ni daa am dignité te nag sëriñ Tuubaa nee bàyyi fen moo gën jàng alxuraan ak xam-xam te di ko jëfe mu dellu wax ni sàmm sa juróom-ñaari cër moo gën dëkke koor fàttali ko àllaaxira moo gën fanaanee julli laa biir ci sa mbokkum jullit moo gën fital jihaad bàyyi mooy moo gën dëkke jéggulu digle aw yiw moo gën baril sarax tere lu ñaaw it moo gën dëkk ci di ñaan yàlla foo toll jàmmi àddina wérug yaram noflaayub àddina amalug dund wéttalu àddina amal soxna yërmande yi àddina amal doom xam-xamu àddina xamal yàlla man-manub àddina maneel ak say bokk kii tuub la yàlla di jéggal kii muñ la yàlla di jox ndam ki ami teggin la yàlla jox baat